li ma ciy wax lu daanaka ginnaaw bi ma nuyoo mbokku taalibe yi nuyu Sénégal gépp loolu moom tontu ci lu yomb la ndax monsieur Idrissa Seck ku ko xam xam ni ku baax la koo xam ni parti démocratique sénégalais foofu la tàggatoo te bari na sénégalais yoo xam ni boo leen laajee Idrissa Seck da ngay dégg ñu xamal la ne ku am xam-xam la kon tey lii ñu dëgmal nga xam ni. sun borom daa dogal ni muy laaj réew mi ngir am na xam-xam bi am leneen lu ci dolli muy daa jébbal boppam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul loolu sant yàlla la ndax sëñ dimbli na ku ne ku ne bàyyi ko na fu ne rek dikk fi moom kon ku mel ne Idrissa Seck bu bu bu bu bu càmbaree ay mbiram xam ni moom kat dem fekk ji ñooñ sëñ Tuubaa yi dana gën a duunal ak ndabam day dem fekk ji ko. loolu amul benn malentendu loolu lu am solo la lu rafet la la lu ñuy rafetlu la quant à ñeneen ñi nga xam ni nag euh, dañoo am wuute xalaat ba tax ñu naan diw mii moo fi jële diw mii ñooñ dañoo gàtt xam-xam seen xam a bariwul waaye lay jële diw mii wala kay jël loolu suñu borom la waaye nañ bàyyi yàqante bi yàqante baaxul ndax doomu aadama bu ne am na loo xam ne lu nekk ci lu intérieur loo xam ni bëggoo doomu aadama bu ciy nekk di ci lunjutoog yooyu waaye waaye di di faral di def lépp loo xam ne yaa ngi gis nit kuy waaja a ami ndam mu wóor la ne kii sa bët bii nga jàkkaar lool aw na ci yoon woo xam ne suñu borom fësee na kaa jox ndam da nga naan xaaral ma fexe nu ma nu ma galfañee ay tànkam ngir indil ko ay jafe-jafe daat kay duural ni ko mag ñiy waxee nga xam da nga koy sosol ay wax joo xam ne wax ju doye di lay doon rek ngir di ko waaje pour pour fas yéene ko yàqal waaye nag loolu mënoo ko sun borom ki mu far a war a war a war a dimbali maanaam ba boole ko ku tedd ki ngir mu jiite réew mi loolu sun borom def na ko ba noppi xanaa kay da nga ciy wax lu rafet ba rafetee ci wa ilaa nga wax ci lu ñaaw ba ñépp xam ni yow mii kat ndeke sa jikko sell ndax sa jikko bu sellee sax am na loo xam ne doo ko fàttaliku ba di ko wax ndax da nga koy tànqam doomu àdduna boo gis ci àdduna rek am na moment yoo xam ne dafa difficile woon ci ginnaawam des fois mu jekku ba ba war koo mën a mën a mën a mën a mën a xeexee waaye day xalaat ni dara jaru ko nag ndax ku xool ci yonent bi nga xam ne c'est le prophète moom daraan toléré sëñ Tuubaa mu tedd mi nga xam ni maanaam ñun ñëpp moom lañ yaakaar c'est le grand tolérant ndax ku xool li ko sëñ tubaab bi def nga wala nga xool ku mel ni mbaaxaan nga xam ni mën ngaa xool ba ci biir mu doon mbaamu njóobee ni maanaam te teewul lépp bi dimbali ko bi mu jotee dañ koo dimbali te xooluñu ay jafe-jafe. waaw ñooñ tamit daanaka seen njàng daa soriwut ndax li tax seen njàng soriwut mooy sëñ tubaab mbër mu ne ñi ñi dëkk ci moom ñëpp jébbal ko seen bopp te nekkoon feneen ñooñu ay mbër lañ cafañ ne. waaye ñu ci bari dañuy bëgg seen mbir mooy li ma la wax sànq ne dañuy bëgg seen mbir gën a woom ñu ñëw fekk sëñ Tuubaa Idrissa Seck daa dem ba yëg lu mel noonu te nag lu jaam ñi xamul daa leen ko xamal tey Idrissa Seck mi sëñ Moustapha Bassirou moo jàpp ci loxoom déglu bu baax li ma wax Idrissa Seck mi mi ngi may dégg euh, sëñ Moustapha Nawel du ñàkk dana seetaan vidéo bi sëñ Bassirou sëñ Moustapha Bassirou mi nga xam ne mooy taawu sëñ Bassirou moo jàpp loxo sa Seck indi ko ba ci sëñ Moustapha Nawel ne ko téyel mu téye mu ne ko boole naa ak moom ne ko bokk gut ci ñun waaye yàgg yàgg dana bokk ci ñun lii ma lay wax nag ci ressource yu leer naññ naññ nga xam ne lii ban koy wax léegi daanaka ba muy jëf-jëf jëg léegi mat na ay fukki at ak nàngam kon dafa am ñoo xam ne ndeke gëstuwuñu dafa am ñoo xam ne sëriñ bi moo leen tànnal boppam recruter leen ana ñaata nit ñoo nekkoon ci négatif sëriñ bi jël leen ci négatif indi leen ci positif ba naan la bamba fépp nan la bamba partout nan la bamba everywhere dem ba naan la bamba merci li ko waral bamba moo sélectionné ñëpp képp ku bëgg lu baax rek di nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba c'est le seigneur de l'éternel monsieur Idrissa Seck loolu la xam ñi buñ ñu fonto man mii am naa ay maamu tiijaan yu mag a mag a mag a mag yoo xam ni ñenn ñi dem nañ ba tey ji dañoo ay murit lañ yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba ak yeneen yeneen yeneen sénégalais kon yu ñàkk fayda yu ñàkk solo yooyu jarul di debaa jóge na fii dem na fee dëgg la wala du dëgg loolu yàlla moo xam waaye ñun gëm nañ ko ngir dañoo rafet njort ab jullit nag day rafet njort man de gëm naa ni sa Seck xol bu rafet la yor murit saadix la ku gëm Cheikh Ahmadou Bamba te dana gañ réew mi lii man maa la ko wax mu leer nañ barke Cheikh Ahmadou Bamba baax na laabiir na am na taalibe am na xam-xam mu mën a jiite réew te adduna looloo ci am solo avant de faire il faut savoir faire ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi ñëpp nga xam dañuy dox ci xam-xam kenn ku nekk la muy yëngu xam-xam xam-xamam da caa màcc ba nga xam ne xam nañ ne kàng fóore la waaye tey jëmmi Idrissa sekk mii ngeen di gis barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul borom xam-xam la ci li ne. ku jara dénk mi man maa ngi lancé appel bépp sénégalais mu nekk ci jaspora bi suma xarit di nekk Suisse wala Allemagne wala Australie yéen ñëpp maa ngi leen di xamal ni seen carte bii ngeen yor jël leen ko ngeen jébbal ko monsieur Idrissa Seck ngir lan am na xam-xam ñaareel bi ci dolli ko mooy taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi siyaare mboolem jullit di siyaare mboolem sénégalais yëpp.